الله أكبر الله أكبر طبعا تخمني يوم في باب باب في القدر في لو أدي في دوغ الوصول برم تبارك وتعالى كن بكم من الذي إن شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان حاء وقال حدثنا أحمد بن صالح المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال آدم أنت موسى استفاق الله بكلامه وخط لك التوراة بيدي تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى قال أحمد بن صالح عن أمر عن أمر عن تاوس سمع أبا هريرة حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن موسى قال يا رب أرني آدم التي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم فقال له آدم نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له آدم ومن أنت قال أنا موسى قال أنت نبي بني إسرائيل التي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه قال نعم قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق قال نعم قال فبما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك fa xajja aadama muusa fa xajja aadama muusa bismillahi rahmaani rahim kon ni ngeen ko déggee euh, kon xadis boobu ni ngeen ko déggee Abu Dawud xadis la boo xam ne génne na ko waaye du moom rek moo ko génne al imaam al Buxaari itam génne na ko ci saxiixam kon xadis la boo xam ne amul wax xadis bu wér la bu sax la حديث أبو هريرة لا من من طاووس من سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دقنا أبو هريرة من خبر جلتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نانا من احتج آدم وموسى احتج بلنا خير فريكو ورنتنا ñaar ñoo xam ne dañuy layoo ci masala ba kenn ki yooyu morom bi ci masala noonu la ñuy tuddee ixtijaaj kon ixtaja layoo na moo gën sax nga ne ko werante na ndax werante day xawoon loo xuloo te ñoom ñaar ñëpp ay yonent yàlla lañ kon layoo moo gën a woyof aadama ak muusa layoo nañ ñoom ñaar aadama yonent bi yàlla bi mu jëkk mooy ki mu jëkk bind ci doomu aadama ci nit moom la jëkk a bind ci xeet yi nga xam ne moom la ñuy tuddee xeetu doomi aadama maanaam ñoom ñëpp ci aadama lañ jóge Muusa gannaaw aadama la feeñ ci jamono ju yàgg yàgg lool kon su ñuy layoo feneen la foo xam ne du caa gi ne dañoo daje ci àdduna ñoom ñaar lu dul ni muy leere ci riwaaya bi ci def nga xam ne Muusa alayhi salaam moo ñaan boroomam mu won ko aadam mu won ko ko layo boobu am seen diggante dal di am qaala muusa ya aadam anta abuna xayyabtana yow de yaay sun baay maanaam ci yow lan jóge nun ñëpp xayyabtana mooy tax nga sunu yaakaar wa axrajtana min aljanna nga génne nu àjjana yow yaay sababu kon tey nekku nu àjjana waaye nu génn nekk fii ci kaw suuf ndax ni ngeen ko xamee borom bi tabaraka wa taala bi mu bindee aadama ba noppi yóbbu ko àjjana daf ne ko xéewal yaa ngoog lekkal lu la neex dëkkal fu la neex mu la neex defal waaye genn garab gi bàyyil ma ko fi bu ko laal bu ci lekk seytaane ñëw di ko jax-jaxal di ko dig ay yëf ba lekk loo ko ca garab ga yàlla génne ko àjjana wàcce ko suuf yi ca tegu yépp tegu ca ba ci fii lu toll tey kon Moussa ne ko yow kon yaay sababu loolu tas nga suñu yaakaar ndax àjjana jan yaakaaroon a nekk ñun ñëpp yow yaa nu génne fa qaala aadam ne aadama ne ko anta Moussa yow yaay Moussa istafaaka allahu bi kalaami yàlla moo la tànnal boppam ci ay waxam maanaam wa kallama allahu Moussa taklima yàlla dafa waxanteeg Muusa wax joo xam ne Muusa di ko dégg kenn doxul seen diggante ñoom ñaar loolu yonent yu bari amuñu ko ndax su yàlla daan wax ak ñoom day yebal malaaka malaaka mu ñëw wax mu ne ko yow yàlla daf laa tànn ci ay waxam wa xappa laka tawraata bi yadihi sa téere bi ñu wàccee ci yow ñi koy yàlla da ko bind ci loxoom loolu téere boobu rek nag la ko def waaye leneen du dul loolu ànd ak ne alquran moo gën téere yépp wante borom bi tabaraka wa taala daf koo wàcce ci malaaka malaaka ma jot li ko yonente bi salallahu alayhi waalihi wa sallam tawra nag borom bi tabaraka wa taala daf koo bind jox ko Moussa ah mu ne ko kon yow yaay Moussa mi nga xam ne yàlla defal na la yooyu yépp ànd ak loolu taluumuni ala amrin qaddarahu alayya qabla an yaxluqani bi arbaina sana ne ànd ak sa ngëneel yu mag yooyu yëpp yow nga di ma yedd ci mbir moo xam ne bi ko yàlla di dogal ci man jiitu na mu di ma bind ci loo xam ne mat na ñeent fukki at maanaam dogal na ko ci man ñeent fukki at avant mu di ma bind ñeent fukki at nag buñ ko waxee waxuñu ñeent fukki at ci sunuy at waaye ci ayaamullah lañ ko wax at ya nekk fa yàlla wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma taudduun kon ñeent fukki at lu rëy la ndax yàlla daf ne benn bis fa yàlla mooy tolloog junni at fii yéen suñ amee junni at yu ne kon benn bis a ngoog fa yàlla kon kooku ñeent fukki atam defe naa ne lu yàgg loolu hmm? soo ko calculé da nga gis ne kon at yu bare bari la mu ne ko nag diir bu toll noonu yàlla dogal na ko ci man ne loolu danaa ko def lu jiitu ma di ko def ba noppi nga demay yedd ci yaraangi ci loolu nee na fa xajja aadamu muusa fa xajja aadamu muusa maanaam muusa daal di yey aadama eh, daal di yey muusa maanaam ñaar ñoo xam ne dañuy layoo ba kenn ka yey moroom ji mooy moroom ji amatul lu mu wax bi aadama waxee loolu muusa muusa noppi riwaaya bi ci def moo ëpp ay détails am na yuñ ci yoo xam ne yu mat a xam la bii weesu dañ koo gàttal waaye nag bii di ñëw moo gën a yaatu moo tax ñaari riwaay yi suñ ko jàngee xool li aju ci masala bi loolu danañu doy insha allah ci jotaayu tey xadis boobu kon bi jàll Abu Hurayra la waaye bi ci des Omar ibn al-Khattab la kon ñaari saxaaba yi dégg nañ ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam anna Omar ibn al-Khattab qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna muusa qaala mu ne muusa dafa wax ne yaa rab arina aadama alladi axrajana wa nafsahu min aljanna yow saa boroom won ma wala wonnu am na riwaaye boo xam ne arini moo ca ne am boo xam ne arinaa la waaye mooy wonnu aadama mi nga xam ne moonu génne génne waale boppam ajjana kon xam nañ foofu ne aadama moo ñaan euh, Moussa moo ñaan boroomam mu won ko aadama ndax aadama jiitu na ba faatu ma nga ca barzax waaye ci kàttanug yàlla mën na ko won yonentub yàlla bu ko ñaanee mu won ko mu ne ko won ko fa araahu llahu aadama nee na yàlla daal koy won aadama nag aadama ngi kat fa qaal anta abuna aadam yow yaay maam aadama wala sun baay aadama maam dañ koy baay dañ koy wax fekk maam lañ ci فقال له آدم نعم منك واو من دماغي قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحي ولا من روحي يو ياك يحم يلا دفلا بند والتيو تروحم جا. ها وعلمك الأسماء كلها محمل توري لب لو خم النار نكو بند كم القرآن وعلم آدم الأسماء كلها تم خمل توري لب وأمر الملائكة فسجدوا لك مدق الملائكة يسجوت الله قال نعم من لي ما آدم مومو ما آدم من خان يالله مومو بندك سوف دال دول أذروح اسمه يرم مجوب تخو دي نب مدال دي ما يخمل طول لب لنرا أم دال دي دقل ملائكة يتم يسجوت الله ملان يومن يوب سجوت منكو ما يجي Moussa ne ko fa maa xamalaka ala an axrajtana wa nafsaka min aljanna xam ngeen ne Moussa ci bindam ku tàng la woon siiratu Moussa boo koy jàng ci daawaam lépp da ngay gis tàngoor mu ne ko fa maa xamalaka ana lan moo la xiirtal ci nga génne nu ajjana génne waale sa bopp fa qaala lahu Adam wa man anta yow yaay kan kon آدم عليه السلام كما يقولون تيدي وقت ممكم جم جنان برامم يغن كوكم وغن كوكم واخ واخ جمال نونو لاجي مكرون لاجي مكرون نعم واو واو واي نقا مقول كومو ما تخدم أجل من فيو يعني كان قال أنا موسى من يكون من ماي موسى قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه قل سوال التاريخ ci wàllu xam-xam ak waxyu aadama am na xam-xam bu aju ci Muusa lu jiitu loolu waaye nag xamagul ne jëmm jii di wax ci kanamam mooy Muusa moo tax bi mu àggale mu ne ko waaw kon de xanaa yaay Muusa mi nga xam ne yaay yonentu banu Israil bi nga xam ne yàlla dafa wax ak yow ci lu dul kiiraay ba noppi amul benn ndaw bu mu def sa digganteeg moom wax ak yow direct xaala naam mu ne ko waaw man maay Muusa moom qaal afama wajadta أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق نخ خمونة خمونة لولو نكون الله اللي جيت مديم بند قال نعم ونكون نون لدي قال فيما تلومني لو لتعب لما يدكن في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي lu tax nga di ma yedd ci loo xam ne dogalub yàlla jiitu woon na lu jiitu ma di ma bind kon fii lu jiitu ma di ma bind rek la wax waaye ci riwaaya ba ca des kon xam nga ne arbaina sana la wax jiitoo na ko ñeen fukki at قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرنت صلى الله عليه وآله وسلم نتلي بأكس صوفنا من عند ذلك فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى نتلي يرنت صلى الله عليه وآله وسلم donte riwaayat Abu Dawud ñaari yoon la ko wax waaye daf ne Adama yey na Muusa Adama yey na Muusa Adama yey na Muusa kon lii mooy xadis Muusa daal jaamu bi yàlla la ab yonentam la yekki na ba mu yàgg muy xalaat ci mbir yi ba mu yàgg mu am yëg yëg ci ne lii coono yu metti yi daal lépp dafa mel ni sabab sa mooy Adama kon Adama moom mat naa giseel man de yonentub yàlla laa man Moussa te yàlla loo ko ñaan man na la koo may ma ne ko may ma kon ma gis yonent boobu ñuy wax aadama ngir ma wax ak moom yarhamukallah yàlla won ko ko ne ko aadama ngi mu laaj aadama yow lu tax nga tax suñ yaakaar ba génne nu àjjana aadama ne ko lii nga may yedde loolu xanaa xamoo ne dogalub yàlla boo xam ne jiitu na mu di ma bind Moussa amatul lu mu wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon aadama yey na Muusa kon lii mbir mu leer naa ñu ca dogal bu yàlla la waaye nag lu aaje gëstu la lu aaje am ay tomb yu ma a leeral la boroom xam yi dañ ne lan moo tax yonent bi ne aadama moo yey Muusa lu tax am na ay wax yu bare bari yuñ ci wax yoo xam ne yenn yi dëgër na yi ci des dëgërut danañ ci romb ndànk-ndànk am na benn kuréel boo xam ne dañu ne xajjahu li anna aadama abuuhu fa xajjahu kama yaxujju rajulu ibna mu ne aadama mooy yey parce que mooy baayu Muusa mooy maamam na sët bi sët kon bu dee weranteeg maamam wax dëgg yàlla maamam moo war a yey waaye boroom xam-xam yi bokk na ci ñooñu Ibnul Qayyim كتيرين بأمطلب وشفاع العليل من وهذا كلام لا محصل فيه البتة فإن حجة الله يجب المصير إليها مع الأبي كانت أو الابن أو العبد أو السيد ولو حج الرجل أباه بحق وجب المصير إلى الحجة ابن القيم لأن الليد واحد رأى دكتر دون بايم رك دو تخميني موفي يي يي كي كي كوي دف دي nee na kat sët ba su doon weranteeg maam ja it ñuy layoo ñoom ñaar te fekk dëgg dafa ànd ak sët ba dana jaadu ca maam ja kon wala baay ba wala sax bu doon ak jaama ko sangam sax dana jaadu bu boobaa ca sang ba mu dikk fekk si li jaam bi wax wala maam ja li sët bi wax wala baay ba li doom ji wax dana jaadu mu fekk si ko ngir ne dëgg dafa ànd ak moom ah mbir a ngi foofu kon kon ndekete du ko mag rek wala ku féete kaw wala nga doon maam rek ndekete dëgg yow lay àndal nit ki kët mën naa doon sët ba wala mu doon jaam ba wala mu doon gone ga te dëgg moom la àndal ñu wax ne dafa masaam benn délégation bu ñëw ci Omar ibn Abdul Aziz radiallahu taala anhu wa rahimahullah ay mag nekk ci boromi bi jaaw ay ndaw nekk am ndaw lu jóg taxaw di bëgg wax ci seen tur mu ne ko noppil joxal ñi la mag ñu wax mu ne ko yaa amirul muminin su fekkoon ne ay at mooy tax jiite am kon fii nga toog dana am ñu la gën a yey toog fi ndax Omar ibn Abdul Aziz xam ngeen ne bi muy toog di nekk amirul muminin a nekkul mag bi ko waxe lool mu ne ko mën ngaa wax yow mën ngaa wax daal di ko jox parole bu mu wax séentu ndax xam na ne kii li tax mag ñi jiital ko muy wax am na fu jaar ba ak fi tëbul tëb rek ci jiital ko waaye xam-xamam ak rajaaxatu aql maanaam am xelam gu yaatu euh, ak xam nu muy waxe loola moo tax ñu jiital ko muy wax kon woowu lay pour wax ne aadama li tax mu yey Muusa dafa tegu ci kaw ne moo ko ëppi at wala mooy maamam kon loolu du la tegu fenn du lu nit ki dana doon maami nit wala mu doon baayam wala mu di sëriñam wala mu di sangam ñu juyoo ci masala fekk kañ jàpp moom ne moo ka gën a féete suuf ndekkete kooka la dëgg ànd su boobaa day war ca ku mag wala ka féete kaw mu wàcc nag dikk fekk fi ki nga xam ne moom lañ jàppoon ne moo féete suuf beneen kuréel ne إنما حجه لأن الذنب كان في شريعة واللوم في شريعة ñu ne li tax aadama yeey ko mooy Adama ak Moussa ku ci ne da ngaa am sa sharia ah kenn ku ne am nga lu dagan ci yow ak lu daganut ci yow am na nu sa sharia tëddee ñu ne Moussa bi mu ñëw di ko yedd moom ci lim xam ci sharia am ci la sukkandiku waaye Adama it tontu ko ci lam xam ci sharia am moom ñu ne kon Adama daal di koy yey loolu it Ibnul Qayyim nee na dëgërut lu tax li tax mooy yaraange ji Moussa doon yedde ji mu doon yedde Adama mooy def lu borom bi tere mooy def loo xam ne borom bi daf koo tere te loolu amul benn sharia boo xam ne day daganal def lu borom bi tere ah sharia bu mu mën a doon du daganal mukk def loo xam ne borom bi daf koo tere kon yaraange gi euh, sabab sababu yey gi aadama yey Muusa teguwut ci kaw ne ah kee dafa yor sharia am ci yor sharia am lee dagan na fee lii daganul fii mooy yàlla daganul fenn Hmm? moo tax loolu xatiya la maanaam li aadama def yaa kéef la woon juumte la woon loolu moo tax borom bi tabaraka wa taala yare ko lim ko yare ba noppeet won ne moom aadama tuub na bàkkaar boobu ba jéggal na ko ko itam kon day wane ne bàkkaar la woon kon loolu mooy beneen wax bi beneen kuréel ne innama xajjahu li annahu kaana qad taaba min ad-danbi wa taaibu min azanbi kaman laa zanba lahu wala yajuuzu lawmuhu li tax nag kon aadama yeey ko moo di loolu bàkkaar la bu amoon aadama tuub na ko yàlla jéggal na ko ko jeex na ñu ne nag ku tuub bàkkaar yàlla jéggal la mu jeex kooku kenn waratu laa yedd ñu ne kon yaraange bi ñu ne looloo tax kon aadama yey Muusa loolu Ibnul Qayyim nee na yarhamukallah wax ju nuru dëgg nii waaye nee na doonut luñ mën a sukkandiku maanaam du caagi ni moo tax aadama yey Muusa lu tax mu ne aadama ci boppam bi muy wax li tax loola xew néewu ko ah loola day Muusa bàkkaar la woon yàlla jéggal na ma ko lu tax nga di ma ci yedd aadama ëpp ko loolu dane ko lii ab dogal la woon boo ne yàlla moo ko dogal lu jiitu mu di ma bind waaye neewu ko lii bàkkaar la boo xam ne defoon naa ko tuub naa kon wax amatul foofu ñaareel ba moo di ne Muusa alayhi salaam moo gën a xam ñëpp wala ci ñi gën a xam la bokk ndax ci yonent la bokk lépp lu aju ci mbirum yàlla ak ya dagal ak ya daganul moo gën a xam ñëpp ne bàkkaar buñ def bañ tuub ko ñu jéggale ko doo ñëwati di yedd kooka ci jëmi bàkkaar bi def waaye la sosoo ci bàkkaar ba moo tax mu di ko yedd loolu nga xam dafa laal ñëpp musiba moom nga xam dafa law ba laal ñëpp loola moo tax waaye di caa jël jëmmi bàkkaar ba mu defoon ñu jéggal ko su doon loola du ko yedd ndax am na ñu jiitu woon ñeneen ñu jiitu woon ñoo xam ne defoon nañ ay bàkkaar te Moussa xam na ne ñooñu defoon nañ ko te ñaanul yàlla mu dekkal ñooñu ngir mu yedd leen ci bàkkaar yañ defoon ba mu xamee ne yoonam nekku ci waaye nag bii bàkkaar ginnaaw dafa law ba laal yëpp nee na nga xam ne daf leen génn àjjana ñu ñëw àdduna ñu ne loolu mooy sabab sa kon mu wax ak moom ci loolu beneen kuréel ne innama xajjahu li annahu laamahu fi gayri daari taklif walaw laamahu fi daari taklif la kaanat alxujjatu li muusa ñu ne li tax aadama yey moo di muusa dafa ñëw di ko yedd foo xam ne foofa du kër goo xam ne santaane tere dafa am mooy àllaaxira aadama faatu na ba dem àllaaxira foofa digal digal ko ak tere ko amatu fa àllaaxira ku fa xas dem fay rek moo fa sës waaye jaamu yàlla amatu fa ñu ne ku xas dem foofa nag kenn waratu koy yedd ci ay jaamu yàlla ak ndax def nga léegi lu tax nga def lii ñu ne loolu moo tax aadama yooyu ko waaye jooju wax itam ibnul qayim nee na ba tey dëgërut ndax la ci jiitu mooy Moussa waxu ko loolu euh, Adama waxu ko loolu néewu ko yaa ngi may yedd ci mbir moo xam ne man tuxoonaa fi ngeen nekk yéen muy àdduna nga xam ne fa la ñuy santaane ca tere xam ne santaane ca fi loolu Adama ko ñaareel bi itam borom bi tabaraka wa taala àllaaxira dana fa yedde dana fa yedd ñu bare bare bare bare daf leen di yedd ba àggal dal leen di door a yabal ñu dem dugg fa ñuy dugg moo xam fu baax la moo xam fu baaxul yàlla na borom bi tabaraka wa taala boole ci ñoom dul yedd beneen kuréel ne aadama dafa yey muusa ci kaw ne moom dafa def لي ñuy الشهود shuhud dafa لي li الشهود شهد الحكم وجريانه على الخليقة هنا دفع خال جس أبتب على أدمي دوي تكو بالليفي هنا ومشاهدة العبد الحكم لا يدع له استقباح السيئة لأنه شهد نفسه عدما محضا wal ahkaamu jaariyatun alayhi maarufatun lahu wa huwa maqhuurun marbubun mudabbarun laa xiilata lahu wala quwata lah ñooñu nee nañ aadama dafa xalaat ci ne jaam bi dogalu yàlla ni muy dawee ci moom moo di dafa mel ne moom moom du dara du ko am sax far dogal bi daal moo koy jël di ko wëlbati di ko yëkkati di ko tëralaat fu nekk mu jële ko fa ibnul qayim nee na هذا المسلك أبطل مسلك تلك في هذا الحديث لأن جوجو وقت موي وقت جدا نياو شو وقت جوجو موي وقت في حديثي عندك نيت القدرية نخل نيو المعتزل نيوم حديث دي دينك قوالي جابني دي حديث كت كجابني ويرن لم لي أندل موي دا ngay gëm ne doomu adama ji kon munta def dara ci ngiram paré nañ ci moom fiñ ko soob rek lay soobu biñ xoolee loolu ñoom al mu'tazila ñu ñi tudd al qadariya dañ ne kon hadith bi yuru daal di koy dàq ñoom loolu moom mooy seen taxawaay ci xadis bi ànd ak loolu ibnul qayim fii nee na wax jii ñii wax ne jaam bi dañ koo jël yor ko di ko jëmale fu nekk mën ngeen a rànd si ndax ci gannaaw gën a yaatu insha allah ñun bu dugg fii ci bi ànd ak ànd ak ne ñoom dañoo dàq xadis bi ne wérut ndax bu wéree li muy saxal mooy nit ki dañ koo forcé ci melokaanam munta soppiku nii lañ ko daaje noonu la mel noonu lañ ko tëggee moole ko noonu munta soppiku loolu la alqadriya wax ibnu alqayim nee na wax jii charrun min maslaki alqadriya fi raddih wa hum innama radduuhu ibtaalan li hada alqawl nee na alqadriya muy almutasila li tax ñu weddi xadis muy par pour bañ a wax wax ju mel ne ji ñuy wax bañ a wax ne nit ki dañ ko jël forcé ko móol ko ne ko ni cëpp nga mën a mel mënoo yëngu mënoo jëm feneen nee na pour bañ a wax loolu moo tax alqadariya muy al almutazila muy kuréel bu réer loolu moo tax ñu dàq xadis boobu mu ne nag ñooñu asaabu fi raddihim alayhim nee na ñooñu alqadariya boo leen seetloo liñ jublu muy wane ne wax jooju wax ju baaxut la loolu dëgg la maanaam waxin wow kenn wul ko wax warisi ta wax ne doomu aadama ñi dañ koo móol rek xotti aw yoon ne ko fii ngay jaar munoo jëm ndeyjoor munoo jëm càmmoñ munoo jëm ko munoo jëm suuf amuloo iraada amuloo nammeel sañoo def dara munoo def dara loolu njuumte la mu ne kon alxadari biñ dikkee ne jii wax wérut seen wax jooju dëgg la waaye nag radd bi ñu radd xadis bi wane ne xadis bi wérul kon ginnaaw waxin wi wérut delloo gi ñu delloo xadis bi kooku mooy seen njuumte ñoom waaye ñi wax wax ji ñoom ba noppi saxal xadis bi ñoo ni ñoo gën a rëy njuumte kon lan mooy maanaam xadis bi maanaam xadis bi borom xam-xam yi wax nañ ci wax bare bare danaa la gàttalal li ci al imam ibnu alqayim wax wala ibnu taymiya ci téere mi wax iqtidaau sirat al mustaqim lan moo tax aadama kon mu yey Muusa dëgg-dëgg li tax aadama yey Muusa moo di Muusa dafa yedd aadama ci musiba musiba mi am am na ñaari mbir li tax xadis bi nit ñi di daw pour bëgg a xam lu muy tekki ñenn ñi ne kenn mënu koo xam daal dina nañ ne wérut rek noppalu ci benn yoon moo di dañuy bañ ñu déggee ci lenn lenn loolu mooy lan moo di nit ki di def ay mooy yàllaam suñ ko waxee mu ne lii yàllaa ko dogaloon loolu la ñuy bañ mu juddoo ci su ci juddoo rek déggoo xadis yi nit ki daal na def lu ko neex na naan sàngara na wax lu bon na ñàkk jaamu yàlla na na waxee mu ne li dogal yàlla la loolu la ñuy bañ juddoo ci la ñuy wax al ixtijaaju bil qadri ala al maasi lay ci mooy yàlla yi ngay def kooku réer la waaye nag dogalu yàlla dees na ko def aw lay ci musiba yi musiba dana dal ci sa kaw ñu ne la lii fu mu nga ne lii ah lii dogalu yàlla waaye nga mooy yàlla yow ñu ne la mooy yàlla gi fu mu jógee nga ne lii dogalu yàlla ñu ne kon fu ngeen dégg loolu ne Muusaa bi mu dikkee di yedd aadama yeddu ko ci mooy yàlla gi muy mooy yàlla ndax kat ay yonent nit ñu baax ñu bari amoon nañ lu jiitu Muusaa di ñëw ñoo xam ne Muusaa xam na ni ñii mooyoon nañ yàlla te ñooñu yeddu leen ci seen mooy yàlla gi waaye ci lan lay yedde moom ci musiba nii nga xam ne moo am musiba nii nga xam ne moo am muy génnuk àjjana gi tàbbi si ci àdduna ak coono jeeg dang-dang gi loolu ci la Moussa di yedde kon bu ko aadama ni lii yàllaa ko dogaloon kon mooy musiba mi ci boppam borom bi tabaraka wa taala mu ko dogaloon lii su fekkee leer na rek xadis bi day daal di leer borom bi nee na maa asaaba min musibatin fi l ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dalika ala allahi yasir amul musiba nee na moo xam ne day wàcc ci suuf wala mu nekk ci seen kaw seeni bakkan lu dul nee na musiba moomu bindoon na ko moom borom bi tabaraka wa taala ne dana wàcc lu jiitu muy bind bakkanu doomu aadama bindoon na ne musiba yi dana wàcc lu jiitu muy bind bakkanu doomu aadama kon loolu lu yomb yàlla la moo di bi mu daata bind bindeef yi kenn ku nekk xam na fi ngay jaar loolu jaaroon nañ ci si gannaaw bi mu xamee fi nga nar a jaar ba noppi bind na ne ah fulaan kat diw sàngam fii la nar a jaar jaar fii jaar fii jaar fii xam ko ak bind ko bokkul ak nekkoon ko nag yow faw fii ngay jaar loolu faw ñu xamee ko kon yaraange ji ci lan la Muusaa ci lan la yedd aadam ci musiba yi yi nga xam ne moom moo juddoo ci génn àjjana ji ñu ne kon aadama sabab la ci sunu génn àjjana kon loolu yaraange la aadama ne ko ah musiba moomu kat jógewul ci man ndax yàlla fu musiba am fu nekk ah munta jóge fenn te fekk du borom bi tabaraka wa taala moo ko dogal kon dees na layoo dogalu yàlla ci musiba yi waaye diisu ko layoo ci bàkkaar yi kon Muusa yeddul aadama ca bàkkaar ba waaye da koy yedd ci musiba mi su loolu leeree danañ am leneen lu tuuti loo xam ne moo koy gën a leeralaat moo di borom bi tabaraka wa taala li ñuy wax ne moom noppi na ci programme am li muy tër tër na ko am am na ba noppi lépp xam na ko aadama bi mu koy bi mu koy bind di ko dugal àjjana ci programme yàlla xam-xamam xam na ni kii si suuf la jëm si xam na ni kii dañ koo bind ngir mu jaar àjjana waaye day génn dem ànd ak li mu ko doon wax lépp naan ko garab gaa ngi bu lekk bu def ni defe ni xamoon na ne dana lekk xamoon na ne itam dana ñëw suuf la ciy mooy borom bi tabaraka wa taala li mu wax ci alquran وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة fàttalikul ba yàlla di wax malaayika yi ne leen man kat danaa bind benn xalifa maanaam lenn kuutaay loo xam ne fa suuf laa ko yóbbu danaa ko yebal fa suuf mu doon fa kuutaay kuutaay foofu loolu bindagul aadama mu ne tàmbali di ko bind waaye dana leen maa ngi bind koo xam ne suuf la jëm إني جاعل في الأرض خليفة كون قبلنا نتنا جاء أجنا وأي تسوف لجمس ففكوا ندفن دفن إني جاعل في الجنة خليفة ها كون فوف ني خامني كون فوف دفا نار دك واي خامني لي سي افجار واي لا واي ماغي جيم سوف ها ما تقفلي دفن كو اسكن انت وزوجك الجنة دك لين فوف يا سا جبر سي اجنا واي خامني ني دك موم من غا توخو من غا توخو واي لي جيناو داف كو داف نك ci suuf ci suuf la ko bindoon te ci la nar a dellusiwaat kon wax malaayika yi ne leen kóotaay loolu ca suuf laa ko jëmee kon xam-xamu borom bi tabaraka wa taala tëddoon na mu leeroon nañ ñe ne kii ca suuf la jëm foofa itam la nar a dëkk nar sa dëkk feneen fu dul foofa kon mu daal di leer nañ ne programme borom bi tabaraka wa taala noonu la noonu la xamee li nar a am lépp noonu mu ko xamee ci aadama xam ne kii kat bind naa ko tey dana jaar ajjana bu ëllëgee dana wàcc dem suuf noonu la xamee sa détails yi fi nga nar a jaar fépp ñi réer ci bunt boobu nag mooy jaawale xam-xamu yàlla ak ne kii yàllaa ko yor di ko conduire moo ko dugal ca baar ba moo ko jaarale fii moo ko defal déedéet loolu moo koy defal moo koy defal boppam moo koy defal boppam moo la jox ñaari kàttan yi kàttanu xel gi nga xam ne mën nga koo jëriñoo jëm ndeyjoor wala nga jëriñoo ko jëm càmmoñ mën nga koo jëriñoo baax wala nga jëriñoo ko ñàkk a baax bu fekkee da ngaa xool foofu danga nga yëg ne say jëf yëpp yàllaa ko bind lu tax mu bind ko moo la jox kàttan waaye nag tànn nag tànn gi lu baax ak lu baaxul kooku yaa koy defal sa bopp yàlla xam na ne da nga ko tànn li nga nar a tànn bind na ko teg ci benn téere boo xam ne yoon wi nga nar a jaar fépp xam na ko loolu doomu aadama xam-xamam bu gàtt sax xam-xamam bu gàtt sax day defar dara borom usine bi day defar dara xam fi nga xam ne lépp fi fële ñu buñ fi jaaree ak moom nii lay doxe buñ jaarul ak moom fii du doxe nii xam programme machine bi wala jumtuwaay bi nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo su fekkee doomu aadama moo mën loolu boo xam ne bu muy liggéey la a xam li koy taal ak li koy fay ak li nga ne buñ ko ko defee mu yàqu ak bu yàqoo li koy defaraat ah, te te mu ngi ci usine bi génnagul kooku borom bi tabaraka wa taala ci xam-xamam bi nga xam ne yëmut fenn tàmbalewul fenn moom bi bind doomu aadama bi xam détails fi mu nar a jaar loolu doonu sax kéemaan goo xam ne bu àgg fenn fi la kon xadis boobu daal gàttalam moom mooy loolu danañ ci jëriñoo ay njëriñ bokk na ci ne al istidlaalu bil qadr ala al masaib la ala al maaib kon dagan na ndekete ñuy jëriñoo ci dogalu yàlla bi ñu di ci tegtaloo ne musiba su amee wala jàmm wala lépp loo xam ne mi ngi dal ci kaw doomu aadama ji kooku ci suñu borom tabaraka wa taala lay jóge waaye nag bàkkaar yi ngay defal sa bopp yow bul ko jël nga askana ko sa borom tabaraka wa taala daray ci jëriñoo itam taqaddumu ilmi llahi subhanahu wa taala bima yakunu min afaali alibadi wa aksaabihim li nga xam ne mooy xam-xamu borom bi tabaraka wa taala di jiitu lépp kooku leer na nañu ci xadis boobu danañ ci jëriñoo it ne laa yajuusu lawmu l insani ala zanb ala zanbin taaba minhu loolu su fekkee ne jàpp nañ jàppoon nañ ne aadama Moussa daf ko yedd ci kaw bàkkaar bi loolu daganul Moussa moo ëpp xam-xam nit ñi ku dul ab yonent moo tax xam na li dagan ak li daganul bàkkaar bu nit tuub kooku daganul ñu di ko ci ñu di ko ci yeddati nit a ngi koo xam ne xamoon nga ko ci ay caaxaan xamoon ko ci po léegi bàyyi na caaxaan ak po dikk na ci dëgg ak njub kooku jaadootul nga di ko gis naan ko ah xanaa du yow bëkk dem yaa nekkoon ci nangam ak nangam ak nangam nangam loolu daganut lu xaraam la lu bon la bakkaar bu mag a mag a mag la ci ki koy def da ngay gis ñoo xam ne ni ñu leen xamee woon ci ak jaahiliya maanaam ci ak caddoog ni ñu ko doon dundee suñ déclaré sax seenu tuub bala leen ko nit ñi nangul faaw mu yàgg ah kii di day wax rek bi moom moo fi doon def nangam bëkk démb ñu ne ah waaw moom kay moom noon lay def day wax tey lii bu ëllëgee mu dem di def fekk ñooñu ñu ngi toggoo bàkkaar yu mag a mag a mag ci nekk ci bàkkaar ak bàkkaar bi lu mu mën a toll bu doon day rëy bakkan bu doon doon di naan sàngara bu doon day njaaloo wala yaasu billaahi mooy yàlla gum man a doon su xasee tuub dikk si njub jaratu sax ñu fàttaliku loolu ndax boroom bi tabaraka wa taala moom mi ñu doon mooy ndeeg moom mooy far ko يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعونا أتبع السيئة الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحها صادف نياو توبكو غدس لرفت لرفت لبجي يدي فر لنياو لي سوفيك نمو يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يوخ لولو أه؟ برم بتبارك وتعالى دي وخ يدون دف ميال يمجي كم نيجن تجي في مجي سورة الفرقان أي أيوة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا أولئك نبدل سيئاتهم حسنات يبدل الله سيئاتهم حسنات أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات نيوخم ندم نبنياو تيس لين دسخ بسبب السين توب غرافت جمي نياو تيس لين جول بتك صبتكم ممتي بطن مفرنك أي أي أي أي يو يوخم ندن كويسة كي بلاسم يوم السيام ويديس لكو جاري كون كدون ما يالا بطوب كان ورسل وقل جمتي بكارم بطن دسخ danañ jëriñoo ci xadis bi itam ne kon Muusa lim doon yedde Aadama du mooy bakkaar bi mu def waaye lam ko doon yedde mooy lan musiba mi sababoo ca bakkaar ba loolu la ko doon yedde kon loolu ay tomb la yoo xam ne danañ ko jëriñoo ci xadis bi mën nañoo taxaw foofu ndax génne gi xaw naa yàgg ñu xaw a gàttal tey kon insha allah su fekkee am na laaj yu aju ci bunt bi eh, ci gis gi Moussa gisaat Adama gannaaw boo xamee ne Adama faatu woon na ba noppi te Moussa moom di dund mm-hmm. eh, kuréel yi nga xam ne dañoo jàpp ne maanaam nit mën naa nekk fii walbatiku di gisaat koo xamante ne nii ku fi jóge woon la ku faatu woon ku mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa leneen léegi lu mel nii lu mel ne waxante wi Moussa di waxante ak Adama ñoom dañ ko def subuha ngir jàpp ne maanaam warees naa mën a gisaat yonent bi moom ay yëf wala waxante moom wala leneen ak leneen leneen léegi naka subuha boobu wala lënt woowu léegi naka lañ koy dindee wala naka lañ koy dàq ba ba delloowaat ko kooku euh, laaj la xam ne laaj bu ñëw fi mu war a ñëwee la ndax ñu ngi ciy ñu ngi tegtalu yi ci leneen loo xam ne lënt la ci sallallahu alayhi wa alihi wa sallam julli na ci yonente yi jiite na leen julli ca baytul maqdis guddi ga nga xamee ne mi ngi doon rañaan te ci yonente yooyu faatu nañ ba noppi foofu ay mbir a ngi fi euh, yonent bi sallallahu alayhi wa alihi moom moo ñu nett li lii moo ñu moo ñu nett li wax bii moo ñu nett li ne aadama ak Muusa gise nañ yow bokk na ci sa ngëm nga gëm yonent boobu ak lépp lu mu la wax nga dëggal ko su amoon yum doon wax ba mu yàgg mu am lenn lu mu wax gëmoo ko lu ngeen koy atte yonent bi dikkee nag xabaar nett li nangam ak nangam am na nga ne yow loolu amut génn nga lislaam kon dafa bokk ci usul cosaan reeni sa ngëm yàlla lépp lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nga gëm ko ndax am na keneen koo xam ne dañ koo yebal ci yow mu toog place yonent boobu nga xam ne dafa war ci yow lépp lu mu la wax nga gëm ko hmm? amaatu ñaareel bi yonent bi sallallahu alayhi waalihi dafa wax ne fa inna sheytaana la yatamassalu bi sheytaane mënumaa mënta jël sama nataal kon ku gént gis ma mel na ne gis nga ma ndax seytaane mënta jël sama nataal ndax am na keneen koo xam ne am na loolu keneen ku mën a doon ku nekk seytaane mën na ko defal ay pexe mën naa di ko wan ko dara lu yorul melokaanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kii yonente bi la mu gëm ne kooku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te fekk du moom ñetteel bi ku lay wax ne man gis naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci gént loolu day boroom xam-xam yëpp rafetlu nañ ne loolu lu baax la martaba la ci gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su wéree ne nag moom nga gént gis ibnu xajar ak ñeneen ñu dul moom dañuy wax ne sart ba mooy nam gént gise kona suñ delloo ci téere yi ñu tudde kutubu shamail nga xam ne ñooy melal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lam gént gis na mel ne la ca téere ba su gisoon keneen kat ñu ne ko kii mooy yonante bi waaye gis na mu yor melokaan wu bokkul ba mu yoroon kon leneen la gis waaye gisul yonante bi sallallahu alayhi wa sallam gis na ko masalan muy ku ñuul ñu ko kii yonante bi du moom ndax bi melut noonu gis na ko mu sol mbubb yoo xam ne ma ngay watu wala muy jëmm joo ne daa watu sikkimam na xam ne keneen la gis waaye gisul yonante bi sallallahu alayhi wa sallam na ko mu yor ci xeeti jumtuwaay yi loo xam ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam daawu ko yor gis na ko mu yor kurus masalan yonente bi amul kurus mosu koo am xamal ne keneen nga soo gisoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg nga gis ne dafa toog kaalaw toog yor kurusam mbooloo mi wër ko loolu mooy li nekk ci sa xel yow ci ni ngay gis kilifa di ni mel waaye fekk na googa kilifa loola du woon ay jumtuwaayam melul woon itam melokaanoo daana kaalaw dëgg la daana sol itam nag lu weex waaye nag boole nga ci loo xam ne bokkul woon ci bagaasam boroom xam-xam yi kon nee nañ ngir mu wér ne gis nga yonente bi sallallahu alayhi wa la gën a rëy loolooti mooy bu mu wax lu juuyoo ak lam daan wax kon léeg-léeg nga gis ku dikk ne la yonente bi sallallahu wa sallam indil na ma nàngam jox na ma nàngam nàngam jooju nu xool ndax joxoon na ko Aboubacar ak Omar ñu ne ah déedéet lii de Aboubacar ak Omar bu ñu yeewu woon xamuñu ko ñu ne kon keneen nga gis ku bokk ci yonente bi sallallahu alayhi wa ndax moom bi mu ko daataan jógee yàlla nee na ko woon diine ji kat mat na اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دين جي متنا بسنك تي دين جي الإسلام فيه تي موي الإسلام بما قرم لو با كرو أدنا بيتو كون تفكير دوم آدم ديكنا كو خمنا كو باخلا كو دقولا كو يخملا mu jékki-jékki di ci andi loo xam ne xeetu jaamu yàlla ne def leen xeetu jaamu yàlla yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma ko jox moo xam ci nelaw la moo xam ci ak yow la te loola nekkut ci sharia dañuy jàpp ne kooka jëm mi iblis mi nga xam ne kenn ku ne dalay fexeel te mucc ci moom nag lu jafe-jafe-jafe la te kenn ku ne martaba ba nga toll foofa la lay fexeele dañuy gëm ne moo la fexeel ndax kat mënuloo gëm ne mukk sharia bi moom matut mënuloo gëm ne sharia bi matut sharia bi bu mat bu complète ñeenteel bi mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi lay wax ne dama koo gis te ci ak yawute maanaam mu ñëw ci jëmmam moom ci boppam laaj bi mooy lu muy wut lu muy wut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li jaar ci lislaam ci ay yëf yoo xam ne su génnoon faj ko ni mu ree yooyu yëpp mu bañ a génn ba ci mujj jamono mu jékki-jékki di génn ngir mbir moo xam ne tolluwut noonu xoola li doon xew ci diggante saxaaba yi ci ay mbir yoo xam ne kenn ku ne danga jàpp ne lii mooy dëgg ci nekkut ci yow moo juyoog yow kenn ku ne gëm ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngay topp ba mu jaral leen di xeex di tuurante ay deret ay nangami junni doomu aadama di faatu ci loolu te xam ne diggante boobu bu génnoon ne ah li di wax kat noonu la ña ca def dañu daan teg seen i jaasi dara ci jullit duutu tuur xoolal loolu ni mu rëy génnalu ko génnalu ko xanaa toog moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mujj jamono mu jékki-jékki di génn nag mbir moo xam ne dañ naan yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ah ay baat ay kàddu de la jàngal diw sàngam daal di delluwaat loolu mënta nekk kon euh, loolu du subha boo xam ne bu waree fa mën a sukkandiku la ngir gëm yu mel noonu lii daal mbir la moo xam ne borom bi tabaraka wa moom faat na ay yonentam ña nga barsax ña nga ajjana itam ndax yonent moom ajjana lay nekk loolu ci parce que ahlu sunna wal jamaa ci la borom bi tabaraka wa taala su ko neexee lu ko neex mën na leen dundal mën na leen a dundal jox leen ab yonentam loolu mën na ko bu ko neexoon it kat nag mën naa dundal ab yonent andi ko nu jàkkaarloo moom di ko ji bu ko neexoon mën na ko waaye kan moo ni xabaar ne def na ko ngir nu mën koo gëm mooy koo xam ne lum la wax dëgg la lum la wax da koo war a gëm soo ko gëmul sa pas-pas duutu baax kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moom nekk na fi ba jóge fi xabaar bu ne jox nañu ko ci diine yi gën a sew sax jàngal nañu ko booy dem ca wana wa nooy def ak tànk booy jiital looy wax ak boo wax yastaftihuun bàyyiwul dara nit ki sax buy tëdd soxnaam lan lay wax jàngale na ko loolu mën naa am lu tol ne moom ci boppam muy delsiwaat adduna di jàkkaarloo xeet wi di waxaat ak ñoom ba noppi ni sell ci loolu ndax loolu xel mën na ko nangu mënu ko nangu kon xabaaru yonent bi daal sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nii alxuraan a ngi nii sunnaa ngi nii mooy li xam ne ku ko gëmut yaa ngi ci njuumte lépp loo xam ne juuyoo ak yaar yooyu wala mu lay dooleel ci xeeti pas-pas xeeti jaamu yàlla loo xam ne nekkul ci ñaar yooyu xamal ne loolu pexe seytaane la dañ ko war a wattali wallahu alam loolu ci waxin wi rek la maanaam axrajtana wa ko waxinu arab moo mel noonu maanaam génne nga nu génne sa bopp maanaam génne gi boppam moo jiitu la càkk ndax ba mbir ma amee aadama lañ njëkk a wàcce waaye Moussa li tax muy waxee noonu mooy génne gi moom laal gi ko laal moom la yëg hmm? loolu moo tax mu yéete bopp noonu ñi nga génne gaa sax génne wàlla gasa bopp waaye noonu ñi nga génne noonu loolu lay loolu moo waral coow moo waral muy muy muy layoog aadama loolu moo tax mu jiital loolu tey waxinu arab bi na wa nafsaka moo gën a jub mu ne axrajta nafsaka wa iyana maanaam euh, ci arab wallahu alam ñaareel bi moom mooy. àggale waaw. Euh, ci li ñuy jëriñoo ci xadis bi. Mhm. bokk na ci nga ne mën nañu yedd nit ci ay bàkkaar wante duñu ko yedd ci ci musiba yi. dañ koy yedd ci musiba yi te duñ ko yedd ci bàkkaar yi. mën li ma bëgg wax mooy damaa jiw mën nañoo mën nañoo tegtaloo dogalu yàlla ci ci musiba yi. Mhm. ko tegtaloo ci bàkkaar yi. Mhm. wax jooju ndax suñ boole la wala déet parce que am na ci Qur'an fi yàlla di wax ne mhm. ma asaabaka min xasanatin fa min allah wa ma asaabaka min mhm. min sayiatin aw min musibatin fa min nafsi loolu laaj bu am solo la foofu musiba sooy mën nga ubbi téere tafsir bu mu mën a doon boo ko xoolee bàkkaar lañ koy firi foofu moo tax ñi muqaabala ko ak xasana xam nga xasana mooy safaanu bàkkaar musiba mooy mooy foofu bàkkaar musiba day firi balaa bi wàcc ci kaw doomu aadama day firi it léeg-léeg bàkkaar kon maa asaabaka min xasanatin lépp loo xam ne dal na la ci xeetu jaamu yàlla woo xam ne yool jóge na ca xamal ne loolu ci xéewalu yàlla la ndax moo la jox kàttan boobu moo la may tawfiq boobu waaye nag lépp loo xam ne dal na la ci kaw ay bàkkaar yoo xam ne yaa ci soobu loolu yow yaa ko tànnal sa ko ak seytaane mala la nax alam